cher internet comme nuñ koy defee rek ñu ngi toujours ci nga xam ne mooy tudd oustaz Modou Fall bi ñu daje fax ki nga xam ne nag moom mooy l'humoriste national muy ñànku ñànku nuyu nañ la bu baax. ma maa ngi lay fay maa ngi nuyu ñëpp ñi ñuy seetaan tey nga tew ci tudd oustaz Modou Fall ñu bëggoon xam ba relation nga am moom. oustaz mm, sama xarit la ñun ñoo ñoo juddandoo fii ñoo yorandoo fii ñoo màggandoo yàlla def ko ni mu koy def euh, ñun tamit yàlla def ñu ni ñuy def donc ñu bokk nekk yëmbal en fait euh, non seulement bokk nekk yëmbal waaye it mu nekk sama xarit du ñu réeroo ci ci ci ci dara su xewlee moom wax dëgg yàlla man ma fi war a njëkk balay nit ñi di jóge feneen man mi dakk yembal maa war a jiitu ci xew bi. déedéet wax dëgg yàlla du tele moo ñu boole lu jiitu ñu koy xam lu jiitu ñu may xam xamante nañu fii ndax ñu bokk fi ñu dëkk waaw. lan nga ñu mën a wax ci moom. nit ku nit ku baax la nit ku dal la nit ku ku ku yàgg bëgg lii muy def la muy dem ci daayira yi xam nga. di waxtaan genre yooyu moom lu mu lu yàgg bëgg la te dafa teel a goog moom dafa teel a nekk mag quoi moom oustaz donc parce que kilifa la yàlla moo ko def lool waaw. ñànku dëgër nga fi de da nga bëgg dugg ci làmb yi. commencé naa kay. lan moo la may fit ba nga soobu làmb ji. dara dama dama damay xaalis rek ah dafa am na xaalis. mais ut nga doole aussi parce que doole bi mooy njëkk après xaalis bi ñoo fekk seen. waaw doole damay waaye ba weer bi dee mu soor wut mu soor wut doole après su ma amee doole après su ko dee yenn combat yi dina ñëw. nooy nooy préparé sa sa combat Yax Pawlish. comme mbër yëpp entraîné bu baax baax a lekk cere ak ak meew bu baax incha allah parce que fi mu toll nii talagu ko ndax damaa nekk ci préparation le 16 décembre loolu moom la waajal donc su jàllee nag ñu soor a song Pawlish Pawlish xam nga Pawlish moom du loolu du combat quoi ay wulli ay këcëb yooyu ñooy combat yu nekk suñ kanam waaye ay Pawlish yi du combat. ci foofu gisoon nañ la nga defoon benn théâtre nekk Azulo boobu mais après loolu lañu gisaat. rôle yi ngay joué mu xawoon rôle Azou la boo comme sénégalais nag ñu bëri dañuy juwaale li nga xam ne moom mooy personne ak personnage ñu bëggoon nga leeral askan bi rôle bi nga xam ne moom nga nekk di joué. waaw bëri na ay critique nag. waaw mënta ñàkk parce que liggéey bu amul critique baaxul <clears throat> waaye ñi xam duñ critiqué ñi xamul ñooy critique te loolu tamit c'est normal quand parce que Sénégal am na ñoo xam ne seetaanuñ projet ba mu jeex après ñoom ñoo koy décortiquer te loolu xam nga xel mënu koo nag donc waaye ñi seetaan début projet bi ak fi mu toll ñoom comprendre nañu li ñu bëgg a def donc ñun nag <clears throat> amuñu jotu nekk di rendre compte ñenn ñi nga xam ne donc dañuy wax rek di wax rek <laughs> ñoom waaw ñun dañu leen rendre waaw ñun ñun ñoo ñoom lañ leen di rendre compte ñun xam nañ li ñu bëgg def ci lañ nekk di def donc liggéey la te ñun ay comédien lañu aussi dañuy def théâtre dañuy def cinéma donc te ca loolu ci loolu ñu nekk noonu permettre na ñu def lii ñu def nii donc méttiwul ñu gis Sénégal soobu première match am am ci défaite 2-0 nan nga dundee match bi déjà ak nan nga gisee équipe bi. waaw donc xanaa damay njëkk a wax rek ni euh, bu ñu ko teg fenn football la da ngay ñu lay gagné 11 lañ ñun ñuy 11 dañuy joŋante rek en fait euh, bien vrai que nag Sadio Mané xaw naa manqué ci match bi. Euh, bu dul sax moom footballam waaye man dama doon wax naan Sadio Mané lu même dañ koo opéré nañ ko te ci maa du gars yi du gëstu ko gis rek. waaye topp dina motiver dina motiver dina motiver joueurs yi waaye aussi boo Sénégalais yi découragé buñ découragé joueurs yi nekk foofu. première match la ñu door ñu kii day tax ñu ñu ñu kiiwaat ñu defarawaat te équipe bu ñu doon football bu ñu football tamit équipe bu mag la. donc euh, seen joueur boobu nekk nekk Liverpool kooku jàmbaar la vraiment donc euh, di wax nañu te nañ nañ préparé waat rek ndax def na ñaari match mën nañu yàlla mën nañoo dimbali waat pour ñu mën a génn ci premier tour incha allah. jaajëfal bu baax di kontaan si yow lan ngay wax ñi nga xam ne ñoo la doon seetaan ci Sénégal. waaw di wax ni nañ préparé le 16 décembre. dañuy dem Grand Théâtre na ko ñëpp waajandoo donc ndax suñu bees la di ñaanal ñëpp jàmm Sénégal yàlla na fi jàmm yàgg. yàlla na fi mu sax ci barke bi yàlla na fi xéewal yu bari yaatu ñëw maa ngi ñaan yàlla suñu borom bii maye yàlla na nañu jekki bettee ñu xéewalu xaalis bu baree baree bari ba européens yi ñëw fii di immigré fii yàlla mën na ko yàlla na ko yàlla